10 millions rek lay xaar bëggatuma sax man combat bi. combat bu ñu tamit ba. non non non c'est pas un problème. na délo sama 10 millions rek mom moko wax xam nga man musuma taxaw ko sama légui sama 10 millions comme moko wax rapidement nak fait wax su fekkee ni mom mi am am na capacité bi na ko wane man capacité bi man xam naa man li peser bi peser même millième gisuma it am kuy de man du ci lay lay sama capacité capable ak capable man sama wuti ñeneen ñu man le problème mooy nee de bëggatu la bëreel Gaston day des si bi loolu rek na indi mais yow avez da nga problème exactement bu mu. non non non amu problème man amu problème moi, un problème. pour bëgg a gaawantu jël avance intégrale man sax ma d'accordoon ci loolu bi ma demee ba ci biir mu génn source a d'accordutuma ci loolu dix million laa ko jotoon a jox combat boo xam ne ci pandémie jotagunu certificat médical CNG ubbeegul signé gunu dara xamunu kañ la lambi ubbi nga jël nit veyu tabaski jox ko dix million mu am lu muy wax ak di mel ni ku yàkkamti ak lu muy profité pour jot intégralité ci loo xam ne xamaguñu kañ la 25 avance bi la millions suñu CNG ñuy combat normal 25 millions Le ko doon chèque bi wax chèque parce que booba de négocier ak banque bu war sponsor ci lamb ji kuy sponsoriser communication ñu signer def signature convention bi ci biir banque en même temps ñom chèque yi ma leen joxone ñu waron ko ubbee compte ci même banque bi xamni suñ ci ubbee compte xaalis bi dañ leen koy wéeral ci compte yooyu ñu ubbi mais comme pour parler yeeg banque bi dafa xawoon a yeex modalité yi et tout ça sotteegul won ci tabaski ñëw na looloo tax ma joxone ko mané ne ko bloqué chèque bi ma jox la 10 millions bis bu ñuy signé ci banque ba dañu xam nan lañ koy defaree nan lañ koy rectifier loro tax ma jox ko 10 millions mais taxaw di wax.

journal observateur rek ko génne journal journal sportif yi génne wuñ ko. kon Gaston su ma déggee dafa mel ni groupe futur Médias lay wax. mais c'est le groupe dañu bëgg a euh, jàppale Macky Sall su ñu bëggee jàppale Macky Sall nañ ko jàppalee ci biir groupe bi mais wax ju saa ni ku bëgg ku bëgg a yekk dara Macky Sall sax wala régime mom fofu ngay jëkk soog dem ci yeneen télé yi. da nga jàpp nag ñoom dañ bëgg teug teug combat pour leur compte. mais suñ ko bari teug nañ ko teug mais c'est que c'est pas élégant manque d'élégance bi moi gêné parce que pour rien au monde euh, nit ko xamni une relation relation nek ci ben combat mais wax dama koy wax fi ay problème lan la jox modulo parole modulo accepter parole bi ko a fait ñu ñëw sax dima de do jël combat combat Luc Nicolaï la nan ko ñaanal yàlla mu génn Balla Gaye am na noo xam ne du ko doxale keroog sax dégg naa benn manager yam toppa parce que Balla Gaye dafa am Aziz Ndiaye Luc Nicolaï euh, kii euh, Modou dafa am Biram Ñing mel ni Fass moom ñoom amuñu personne ressource moom ma ngay ma ngay sax euh, wàññi waa Fass te mu wóor ma ni mbër mu correct mu fa nekk mën nan mën nan la mbër mu correct mu fa nekk déggal leen mën nan la assurer sa survie waaw ah, parce que man xam naa bu baax hmm. mais nak amul problème jàppalu boo ko dara mais bëggatuma ni mu ko bañee combat bi laa ko bañee comme nak mooy jël initiative bopam pour delloo sama xaalis dama ko delloo xam nga yéen ngi ma woo ban heure 19 h 30 ngeen may interview. depuis 8 h du matin la ko waxoon man xaar naa ba 18 h 30 defoon na ni bala heure bi xaalis bi dina ñëw wala mu yone ma ndaw ku indi xaalis mais su xaalis bi ñëwul nak non non kooku beneen affaire la xaalis bi ñëwul <laughs> suba <laughs> waxuma foofu waxam jotagul. wasin mbaa dem tool bëril la wala delloo la si xaalis. waay waay dama ni loolu wax ju eggagunu foofu man ci dëkk bi laa dëkk eggagunu foofu moom moo am initiative bu jël ni daf may delloo sama 10 millions na ko indi. combat boobu bu fekkee yàqu na ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye plan B wu Gaston. man am naa B ba Z. plan B bi lan la. am naa B ba Z. Balla Gaye ak kan. am naa B ba Z. dama doo ma ñamal Balla Gaye ak ñamal dara yàqkat di dañoo bari <laughs> détracteurs yi dañ fee nek ca détracteurs yi nan dem ba ca kanam nan dem ba xam fu wànnent mu jégi bëtam on verra. waaye daal la doon mën nanoo presse bi mën nanoo binde mën nanoo am seen groupe de presse de médecins yi mën nanoo faj de mais ñu nga yem ca santé jàngalekat yi ñu nga yem éducation euh, baykat yi ñu nga yem agriculture mais làmb ji nag làmb ji nag modestie à part affaire Gaston la ak ñim ak yenen promoteur yi. tu es le dunking ah koku yene ko wax de man waxuma jere jërëjëf Père Gaston jërëjëf.